douze jours après mon accident euh, je me sens pas très bien mais je me sens nettement mieux par rapport à il y a il y a sept huit jours il y a sept huit jours je je pouvais pas parler comme ça il y a sept huit jours je ne pouvais pas lever euh, la main pour récupérer même quelque chose sur la table Ces huit jours, je ne pouvais pas me lever sur ce lit pour m'asseoir sur la chaise euh, sur laquelle euh, assise. dama leen di benn anecdote rek bi euh, responsable sécurité bi ñëwee si si kii bi si euh, si accident bi mais dafa laajte ana bi voilà parce que vu la gravité de l'accident pour moom kii waru dit waru fi génn indemne. je suis incapable de raconter. scénario bi nga xam ne am na entre bi may dugg autoroute di romb premier péage bi euh, Kër Massar ak accident bi boobu moom ku ma ko nettaliwul je suis incapable de le savoir. mais ñu bëri dañu gis ne euh, maître Babacar Ndiaye dafa partir ak benn longueur d' avance lan mooy chance su Pathé pour yow. mais en fait xam nga euh, chance su Pathé Keita moom mooy que le monde basket. que les dirigeants du basket que les du sport damay wax ñëpp nag du DAPS du ministère des sports parce que ñoom ñëpp ils ont un rôle à jouer même si on a critiqué leur rôle le CNOS le ministère des sports la primature on a un rôle à ils ont un rôle à jouer justement pour le renouveau du basket on crée pas un renouveau du basket comme ça non c'est-à-dire que basket bi moo dem ba surux beneen nit moo ko surxal benn mooy l'actuel président dootuma tudd turam parce que man nee naa la maintenant turam dama koy gome mais benn nit moo ko surxal mooy l'actuel président et son équipe. maintenant le pouvoir le premier ministre le président de la république ils ont en face d'eux ceux qui ont porté le maillot national ceux qui l'ont porté ceux qui ont amené le basket à ce niveau-là maintenant il y a un à faire et le pour moi il n'est pas très difficile ñi nga xamee ne ñoo indi raaye si dëkk bi fii je prends des gens comme Mathieu Faye Lopez Amélie Amélie Lopez euh, Nathalie ak ñeneen ak ñeneen parce que boo leen bëggee cité fii dañu bari ñooñu ñëpp lu ñu indil raaya ci Sénégal ci turu basket doo ko weccee ak benn doxandem boo xam ne dafa jóge fale di wut tur bu nee basket bi ça lui pour am tour donc ce qui veut que basket c'est un basket bi c'est un de publicité pour moom mu am tour en tant qu'avocat je pour yow bu ko gañee est-ce que jot na famille basket bi yëpp retrouvé wu comme ni ko football bi di defee ak seen slogan boobu man ko wuti ndam moom si est élu au cas man Baba Tandian je raye définitivement ma vie sur le sujet du basket au Sénégal pour moi je pèse bien mes mots je raye définitivement ma vie sur le sujet du basket au Sénégal suma dërëm suma ñaar dërëm suma juróomi dërëm suma temps suma coobare suma coono dootuma ko ci def mais nag je continuerai à féliciter tous les personnes ou toutes les personnes qui son en train de se donner à fond la caisse justement pour cette discipline là mu dox damay ñaan euh, nguur gi comme ni ko Nathalie Sagna defee suma sis Nathalie Sagna trois fois championne d'Afrique trois fois championne d'Afrique tëggal nañ ko hymne national ak drapeau Sénégal trois fois mu toog sukk di saraxu di ñaan président de la république mu diddi fi waa ji yàqare suñu basket xam nga ko bëgg jël dara huit ans après mais xam nga nga am résultat ci boo amoo résultat tey ñun mënuluñu ko dara c'est comme tey Senghor tey résultat yu mu am tey kenn mënulu ko dara mais bu defoo résultat yi tey mais kenn du ko mënal dara mais malheureusement basket bi egg na benn niveau bu nga xamee ne Adja on a jamais terminé on a eu la risée de notre vie on a jamais terminé quatrième en championnat d'Afrique depuis 1956 ce n'est que ça rek je demande au pouvoir public comme ni ko suma sœur Nathalie ñaanee man baaba Tania sur mon lit de mort je dis bien sur mon lit de mort parce que je suis un revenant parce que au vu des accidents là qui normalement tout le monde se posait la question ma de bu dudd si que j'ai la chance aussi de suivre demee les péripéties de notre basket national avec le mayo national di féliciter ñi nga xamee ñoo ko jiite du ko yóbbu si kanam